sama doole sama xam-xamu bëre sama jom ak sama fit laa ko teg. waaye nag amateur doon en direct de. perpétue la ci seen fi yaa fonde nga ci waaw laa déggee naan na ko daa ma kii fu bëri wax booy ñaa mu naay fonde bi dog na war na yàlla ba bëri wax. fonde bi da nga tàjlu yàgg looloo tax sax amul sax du moroomu booy booy ñaa booy Fonte bi dafa dog booy. Fonte bi dog na bi yàgg tëyu ko. Fonte bi dafa dog quoi. Eh, waxal nga naan Fonte bi nu mu Elton Fonte bi nu mu def. Elton a ngi nii. bébé booy la wax yow Fonte bi nu mu def. dañ koo seexal Fonte dañ koo forcé. ka lañ forcé. dañoo forcé booy ñaa si. booy bi nee na dañoo booy ñaa bi taxawal ni kan moo ko forcé Fonte. lak moo ko forcé bu lekk fonde bi muy seexalaate moom lañ ko seexal moom lañ ko fonde mbokk yi suivre Lutte TV point com ñoo ngi leen nuyu di leen ziar duñu duñu bàyyi dara nag dañuy topp action CNG la ñuy jóge ñu dëggal ni Lac de Guiers numéro 2 am na ndam ci kaw ki nga xamante ne mooy Boy Niang Lac de Guiers numéro 2 nag moo ngi nii toog ñu fekk ko ko ñam moom ak ay gaayam ñu fas yéene waxtaan ak moom keroog bi ñu fiy ñëw dañ fay ñëw en tant que mbër mu bëree ba pare def match nul parce que loolu moo amoon ci arène nationale bi léegi nag CNG décidé na jël na dernière décision bi nee na yow yaa daan nuyu nañ la bàyyi la nga nuyu ñi suivre Lutte TV comme ñu waxtaan ak mbër bi nga xamante ne moo am ndam fan la jëm léegi tey nag yaakaar naa di am sañ di nga am sañ-sañ wax fan nga jëm nga ni. sañ naa ko nuyu naa la. <laughs> maa lay fay Lamine di nuyu képp koo xamante teewoon nga ci bés bi stade ba. maa ngi nuyu ñëpp suñu kilifa yi fa nekk ñuy waa CNG suñu papa yi fa nekk ñëpp ñu ngi ñëpp di nuyu képp koo xam ne supporter Lac de Guiers numéro 2 ga ñu ngi ziar ñëpp di béggee ñëpp daal. CNG dëggal na ni Lac de numéro 2 am na ndam. waaw sant yàlla rek moom dëggal na ko rek alhamdulilah parce que tey ndam li fu mu doon gën neexee nag mooy stade mais comme arbitre jum na CNG jël li nga xamante ni moo war suñu digganteeg mbër yi muy lan muy ndam li ne Lac de moo daan. nañ sant yàlla baax a baax daal. comme ni ma ko laajee sa ménagère noonu laa la koy laajee parce que booy dé booy déposé recours amoo droit ni fes damay def fes def quatre appuis laaj naa sa ménagère moom mu ne ci quatre appuis la sukkandiku bind mel bind li nga xamante ne mooy recours bi quatre appuis wala fes bi yow ban nga ci gënoon a jàpp. ma ñaar yëpp kiwis euh, bi. chute la euh, kii bi chute ni mu tudd carte euh, d'appui bi chute la ah, waaw ah, waaw chute la mais amoon nga yaakaar ni CNG dina dëggal ndam. si parce que fu ñu demee ba benn chute am moom mooy comme comme euh, Balla Gaye Bombardier chute boobu noonu loolu chute la kon donc bu ñu ba joxe victoire foofu koy kon sama la dëgër ñaari bi ci benn takkusaan kon nag foofu chute am na te man gëmoon naa dañ may jox sama victoire waaw gëmoon naa ko parce que xamoon naa ne ñi nekk CNG moom ah xam nga la suñu kilifa yoo xamante ne dañuy xool dañuy superviser xool lépp loo mënti indi dinañ ko jàngat te ña ko fa jàngat yëpp lépp lañ teg ci yoon waaw. balaa may ñëwaat sax ci combat bi may ñëw avant combat bi combat yaakaar naa ne Pape Thialis moo ko naroon a njëkk a tëgg combat bi ci yow la dëgëre woon lan moo taxoon lan lan la doon xaal di xoolaat ba combat mu yeex koy ji. non combat boobu maa ngi grand Pape Thialis en passage koy nuyu mu nekkoon promoteur bu baax yàlla dafa tudd na ñun ñaar waraguma ko bëreel xam la sama dëju yaay ñëwoon na fi jaale si ma di ko wax na maa ngi koy ñaanal yàlla yeneen combat yi mu dëgg ko ci jàmm bon c'est pas question de damay am lu ma doon xool dama ko warul woon bëreel am keneen ku ñëw ma bëreel ko jeex na loolu la non est ce que ay xool tamit Lac de Guiers numéro 2 est dugg woon ci ruq xool ba xam moment bi combat bi baax na wala baaxagul. waaw mais lamb boo ko jëlee nga xool ndax baax na waa ndax baax na wala baaxul. man maa defoon choix boo xamante ne taxaw na boo ñaaw waxoon na wax gi bari na xamal ma def choix war a bëreeg moom ma jël ko waaw ànd ceeg samay mbokk ñoom ñëpp ñun ne ma jëlal ma jël. te yaakaar naa ne même somme bi nga doon bañ ci Pape Thialis moom nga mujjee bëri. déedéet non non loolu amul wallahi barki Seydina Mohamed loolu amul waaw. léegi combat bi taxaw yéen ñaar ngeen di jiiñante ngeen di jiiñante ngeen di jiiñante combat bu yàgg. amateur di leen ko jiiñ ngeen ñëw dëggal lool. mais pourtant combat bi la mën a demee parce ku nekk da am conseil mënoo ñëw wax rabax rabax sa combat moom bu rabax rabaxee woon dama koy daan jël bu gaaw doful sax jënd jàpp ko moom xam na baax kuy Lac de Guiers numéro 2 yaa ngi dégg Lac de Guiers 2 tam du rabax rabaxam combat. leneen loo xamante ne ñi yor seen i di xool jàppoon nañ ko ni Lac moo ëpp doole est-ce loolu am na bi nga jàppante ak Boy Niang. Boy na man du ma wax xam ne amul. du ma wax li nga xam ne amul boo ñëwee entraîné na ko mbaam entraîné na ko mbaam entraîné na ko baax a baax sax waaw entraîné na ñëw nañ préparé nañ jàppante nañ runkum daje moom am na lu mu sentir ci man. yow am nga loo sentir ci moom. waaw am naa lu ma sentir ci moom. doole mais ba léegi doole yi bokkul de. waaw man sama bos dama kaa muum man maa ko moomul sama bopp liggéeyal ko sama bopp mu yàgg ci man depuis xale ba ni ma toll nii. doole ji dama ci liggéey dëgg mais moom booy xool bosam war ngeen xam ne moomu ko parce que na ba ci biir muy àppat mu di ko teg ci coach am na kon moomul loolu. mais combat bi yàgg bi que warul lool. ah man kon fu ma kon nan laa war a mel man kon bés boobu noonu moom fu mu demee ba sonn kon man nan laa waroon mel nee nañ ma maay magam yaa ngi ne man ba ma dajanteeg samay mag dama leen wan li am jàpp leen daan leen yaa ngi dégg. maa ngi koy dégg mu ne man maa ko ndengeñ man ndengeñ ma ko xool sama fii xoos xoos bi moom ma teg ndengeñ da ngeen su ma waxee da ngeen image boobu teg ko moom moo ma ndengeñ ci put mënu ma def dara yaa ngi dégg ba ma demee ba jàpp nag laa ne ah léegi fii nag moom jeex na fii amatul ndengeñ maa jàpp. mais combat yi dañuy des gis tamit calcul yi day bëri trop trop trop trop lan mais Lamine loolu la Lamine gars yi nañ accepté loolu combat boo calculé wul di nga daanu jël bu ñaaw. lu leer laa la wax boo calculé wul di nga daan jëlu bu ñaaw il faut nga toog superviser sa adversaire xool ko lan la mën ak lan la indi doo ñëw nga ne kii damay ñëw jëlee fi kut ko kut boo xoolee mu wóor na la lii am nga lu la neex nga dem boo amul la neex nga taxaw am na ñoo xam mbëri yoo xamante nag ñoom xamuñu janj ak joor dañ naan bisimilah dama ñu dal sa kaw <coughs> excuse am na ñu mel noonu. am na yoo xam bisimilah dañuy dal sa kaw ne la kaay day jeex waaw. bari na ñoo xamante man man samay bës moom dama ko jox cër ba mu jeex takk. mais est ce que xam nga ne. entraînement yi wow koŋ ñëw jël sama temps liggéey ak yow nga wan ma ne am nga koofu ma wala ne am naa koofu noonu ah. doo ñëw rek man duma parax parax damay ñëw rek ne la kaay di da nga ne am nga coffre liggéey nga nañ taxaw stade bi kontaan seen xol sedd. mais la est que xam nga ne mosoo sumee ko mbëri amateurs yi ni entraîné woo say supporter wala say supporter adversaire mais combat yàgg yi est ce que xam nga ni amateurs yi ñu ci bëri mere nañ mais loolu dafay baax lamb noonu la lamb doo ñëw jeexal ko ci ay quelques secondes loolu neexul xoolal da ngay xool sama combat ak ay secondes la stade bi ñuy jóg dem ñibbi fay seen xaalis ñu ñëw taxaw gis six secondes nañu waxan dëgg loolu neexul il faut que yow nga wan ne say supporter na yow am nga coffre nga tenir fii ba suba. loolu mooy làmb maanaam mu metti xeex bi bari mais nga ñëw rek bis ma ci cinq secondes mu jeex wala ci six secondes mu jeex loolu gars yi ni ñu xamee ne sa adversaire am na coffre amul coffre combat kay day duré nit ñi xam ne mbër mi entraîné na xam nga ngeen wéccantu ay coups ñu xool seen xol yi fu mu toll mais doo ñëw rek jeexal ko ci ay secondes déedéet combat dafa war a duré ñu xool mbër mi li ñu doon wax ndax am dëgg est-ce que entraînement mi doon entraînement triché xam ngeen ne man wu ma triché wu ma kan mooy moo fa signe de Fatick. kan mooy tricher. boo ñaa dafa tricher. ngan di tricher la doon tricher. dem ma ba sonn ba lang ba làmmiñam génn. léegi kon lan moo tax jàppoo daan wala nga dóor ba mu tëdd. waaye yow boo ñaa su ma nee yëru su ma nee yënn sama yaram mu mu arrière li mu doon bëgg du ma ko may moom mooy ma daw song ko song boo xamante ne saa waay dañu waxan dëgg am na yenn song yoo xam ne su ma ko defee mën naa def katabi. am na ku ma laaj magum làmb la mu ne ma Lac de Guiers bu doon jël ay décision même même li muy naqaree daan naqaree daan même bu doon jël ay décision noonu lay naqaree daane parce que mbër la boo xamante ne mën nga ko egg fa sori te du bëre mais dafa nay ci boppam dafa nay ci yaram. kooku kan la. non kooku kooku dama ko dama tontu balaa muy neex kay nga ne ko papa wala tonton wala ndijaay nga tontu ko tontu bu neex mu dégg. neel papa rek tontu. ah kon kooku suñu papa la mais il faut ñu xam turam. nee na nag neexu la daan ni muy naqaree daan naqaree daan. même bu doon def ay jël ay ay initiative mbër dina ko egg fu sori te du ko daan parce que lool la ko yàlla bindee noonu la mënee bëree maanaam noonu la mel ci làmb man la tontu ma man la. waa père waa yow moom sama papa nga d'accord gis nga li nga wax noonu ah xam nga làmb dafa xaw a nekk li nga xamante ne mooy li may faral di wax rek il faut nga nay sa bopp kaddu yi gën laay indi. dama bañ dafet waxu Yékini bi loolu am solo sportif bu nekk daf ko war a dundee daf ko war a dundee di ko doxee maanaam nit bu ay nit toppee sa ginnaaw da nga war a bañ defet waroo bëgg suuf suuf nag ñëpp a fay tëdd ah. mais da ko war a bañ dee fois bisimilah rahmaani nga ne suuf si acca maa ngi nii déedéet des fois da ngay bañ waxu Yékini boobu dama koy tiitaroo di ko di ko dama ko bëgg wax boobu noonu te li mu wax dëgg la. nit da ngay bañ defet tuuti des fois dina am nag mais danga ko war di bañu warul dëkk ci sa yaram waaw. niil tamit nit ko bañ. niil de moom a gën moom moom a gën a moom moom gën moom a gënal defet nañ waxan dëgg rek nii defet saa waay loolu baaxul sax defet moo gën a ñaaw gis nga ñi ngay wax nii yëpp mënuñ ci la déggee numéro 2 dara du booy ñaaw moom moo ñu mën ci man dara. yan. li ëmb mënul woon ci man si premier combat bi ba deuxième combat ñuy laam-laame daan na wala daanu Modou Lo daan na daanul sax décision arbitrage li ñooñu mënul ci man dara waaye saa yi nañ leen waxante dëgg ay mbokk booy ñaa ñëw la gën xam ne lan de géej de du man wax naa ko depuis ci face à de nee ko wax tey ngay gëj a dugg géej waaye wax naa ko ah, li ma wax am na wala amul tey de gëj dugg dugg. du dugg bis bi dafa dafa raté biis bi na seeti beneen bis kalandoo bi mu jël dafa yéex. nee nga Eumeu Sène nii nii nii nii luy nii nii nii. du ma saltel victoire jàmbur nag dama ne Eumeu Sène sama digganteeg moom deuxième combat xanaa xam am na ñu bari ñoo xam ne nangooguñ ba léegi. yow nang nga wala nangoo. consultant la ñu ngi ci biir làmb ji man maa joxe victoire bi yaa ngi dégg mais du ma saltel victoire am. loo ci jublu woon ba joxe victoire bi. wax gi moo bari woon sama kaw parce que tey am na yenn nit yoo xamante ne tey boo daanoogul wax gi bari sa kaw dafa war a daan dafa war a daan dafa war a daanu jëlal nga joxe victoire bi nga dem sangaat sa yaram defaruwaat xaaraat. bi ngay nekk ci CLAF 2006 2007 bi boo daanoon mbër da nga naan kuy lam kuy bëre da nga daanu man sama defet mu ngi ñëw léegi dafa mel discours dafa changé. defet moom Lac de Guiers numéro 9 ni nag gëmatu ko ci carrière ak ka kaa gëm ak gëm defet mais dama ko bëgg gëm naan defet am na mais bëgguma defet déggoo ma de naa ne defet am na mais dama ko loo bëggul bëggu ko waaw. Lac de euh, Modou Lo nga ak ak ak ak Eumeu Sène nga ne ñooñu mënuñ ci man dara. lu ñu non lu ñu mënul ci man dara. kon mënuñ ci yow dara ñoom ñaar. bu ñu mënoon ci man dara kay daan ma jëli boo xamante ne addu dana ñaan Lac de Guiers 2 ki moo ko daan jëli bu leer nañ. ja jëli moo fa am jëli bu leer nañ laaj naa la ko. yëngaluñ la. ah sa waay ñu ñooñu mënul yëngal Lac de Guiers numéro 2 doo xool Boy Niang mi mu naan day yëngal Lac de Guiers numéro 2 waaye. man kay li ma bëgg a xam mooy ndax ñooñu mën nañ laa yëngal wala mënuñu laa yëngal nee ma mën nañ maa yëngal wala nga ñoo ñoo buñ ma yëngaloon kay kon dañ ma daan. kon dañ ma kon dañ may daan buñ ma yëngaloo ma yëngal ñàkk mën a yëngal moo tax daanaguñ ma ba léegi mais buñ ma daanee ma xam ne ñii yëngal nañ ma déggoo ma de dama bëgg nit ñi dégg lu baax la ma lay wax dama ne sama wax day leer dama ne buñ ma mënoon yëngal kon jàpp nañ ma daan ma jël bu leer nañ ñàkk mën a yëngal boobu moo tax mënuñ guñ ma daan bu guddi yi ñu toll nii. est-ce que yow mën nga a yëngal. man mën naa leen yëngal bu bunt bi feeñee rek ma yëngal la yëngal bu garaaw la ñu tëj bunt bi moo tax mënu ko mën a yëngal. mais bu force daaj bunt bi ay nante lañ nag bu ma daajee buntu dañuy tëb palanteer waaw. dalagun na la sa diggante ak Modou mu daw mu daaji fenêtre daw. ah Modou ba ma ko jëlee lu mu def dañ naan rasu rasu la déggee dee rasu ba ma jëlee Modou Lo fëq ba ma ne ko fëq laa de lu mu def bu rasul woon du ci génn dafa rasu wala rasul loolu laay laaj ak lu làmb ba ma nee bëxit Modou jël ko daw ak moom. est doo ko laaj sax moom. non du ma ko laaj Modou parce que Modou dafa nekk ci combat mais dama ne axlu làmb ah. bi li ci des bareetul te yéen ñaar fu ngeen laale waat wala yaa am si. ngeen laale parce que dafa nekk ci combat bugguma ko perturber parce que man duma joobee noonu mais dama ne ko maa ngi nuyu en passage ñoom ñaar ñëpp muy ëmb seen di Modou Lo maa ngi leen nuyu mais dama ne axlu làmb laaj dañ la déggee dafa mën a rasu ba mu nee bërit Modou Lo jël ko dax ko lan la def loolu lan la dafa arrière.